Mojito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille fruits yep, yëpp ñu Senegal, ko Sénégal si anam yu sell te naturel buy bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi leen sawarloo jus bi sàppi nag oh. oh dina yok sen kattan bolé si vitamine rek la ñi bëgg so naturel nac. vito sont excident pour fait bu monti doon te baax lool si yaxu gune ak mag nac. nag si emballage civilisé te wóor ak jus vito da ngeen am choix te ñu déféré ko ci Sénégal si anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison ña ngi saaga nee na daa dee di ñoo di waaga ànd ak i ndaaya ña ko ngi feeb ah boppam la ca naa ñanko yow xanaa gisoo ñanko boo xamoon ñanko doo la jekka mooy ñanko baam la ca naa e ñanko yow xanaa gisoo ñanko boo xamoon ñanko doo la jekka mooy ñanko ñanko dafa leew mi ngi kon ñi ko mag yi nee nañ dafa dox ñànku kookali bambal ak meer ku ne lay di luube lagalu du doole nekk ci koñ bi di tooñ lekk ànd ndaa yaa di yoole boo koy seet fii jaroon na nii léegi fël fe taxawalu du toggale su papam di wax ak mom du ko faale ñànku ben kilot lay sol ben chemise sans bouton ak dënn bu ñuul tànku neen fu mu toll ak jàll bi ci suuf teg si boobi jaxasoo lool daf la defa am wax waxu nit ba nga foog ni kii moo ko xel bi day dem ak dik no noo daal léegi day way fala ma leen jaay fala ma fala ma leen jaay fala ma jaay ñànku léegi day way fala ma jaay fala ma fala ma ko yow xanaa gisoo ñànk yow boo xamoon ñànk doole. kii nag tey laa xam ne li ñu naan dof du wér rab yay jël congé kii nag ay rabam jëlu sax congé rab yi day xëy rek di dem kii nit la. gars yi dëggante bu ndaw bi la gars yi yokkaat na ci affaire bakk yàlla mais de ma laaj ak ma laajte waat. wuu ma gars maa ko affaire dund ko pa ëllëg yow. wuy ma bàyyi bitig bi xam naa ko moom daa fi seeri njëg nga dem côté route de mi noonu. waaw si wootu ah, fu ñoom dafee di toog. waaw foofu am magasin boobu yomb na ay mbir. waaw waaw nga dem jënd di toog fu mu toll nii. ñoom ñëpp ci maaxoo. Ah. waaw dëkkale la dëkkale. lee xaa nuy def. dem nga côté mbedd bët de hmm. yéen waa xam ne lu bopp maan. yéen rek laay demee. Ah. ba yéen rek. waaw yéen parce que su ma sañoon. waaw indi la fii. waaw dootoo soxla ceeb. waaw diwlin yii yëpp doo ko soxla. waaw léegi bàyyi ma wàññiwaat tuuti. Hmm. nga xam ne xam ne man moom damay jël sama engagement bopp loo xam ne. Hmm. du ma ko ba koog jeex. bàyyi ma wàññi suukal hmm. café meew yaa ngi dégg loolu ma zeel mbulu mi mbulu mbulu fu yow ñànk fu nga jógee fu nga tàbbi sore na de. bàyyi ma seen mbulu bàyyi ma seen mbulu bàyyi ma seen mbulu. léegi meew ak café ak ak meew beeg chocolat man kan ma def ak moom nan. loo kantaamu ko ci kool. kool ko kantaamu ci loolu. kantaamu ko loolu ka kool garaawul kool. ko am problème parce que yàlla ko ko xam kool gën a ñàkk problème. loo am ndaw te mbulu moom mooy priorité soo amee mbulu. loo ci dool fas karam. mburu mi dina ñëw. walla asu ci kaatu seen borom. mbulu mi sa bakka mi laa ci gan. Hmm. moom su may jox sama bakkan bi ñu ma ko jox ay këlëmul daa ko indi. baax na baax na ah? bàyyi ma seet loola. Hmm. baax na hmm. bu xaa sa ni nga sa kanam day mel daa découlage ci moom. ñàkk ba doo dem ñëwaat ne ma bàyyi ma féetewoo mburaake. sol mu laa kaas allah akbar loolu sama ngoon may ma ko. mbulu booy bàyyi ma seet mbulu mi ah ne su ñoo nga ba si mbuur te mbuur moom mburaake si topp. mbu ah, waxa waxa boo def mburaake di nga am sukkal tawaañu woon na sukkal xaa kon ma ma ma sa ko damay waaye de. Hmm. bàyyi bàyyi mbulu mi nag. mbulu mu tànk lu mu gën a tànk. na doon mburu na mburu ñëw rek dégg nga bul temps bul ñëwaat naa ma mburu bees amul. la la yow bul jël peeri na mburu na doon mburu na tudd mburu rek. dégg nga ñànku waaw na tudd mburu waxo misa bu taay ma indi peli soit pel la de bu gën a soit yow sax su ma la leneen na tudd mburu mburu jaana maa na wuy mburu rek mbulu waaw jaana jaana bul riis bul pee jaana dégg nga jaana i sa waaya ah. waaw sa la ma rek ah yàlla am mburu amin yàlla mburu mi ñëw <laughs> ba ngaa yokk ñaangi rek pour leer mburu mi rek ba ma mburu mburu mi ñëw kon gone ba ma gisee muy toog ak ñànk laa xam lu ñànk mbébétoon dina ko dina dina dina ko yàq xool ko rek wóorul wóorul te ku bëgg a wóor ñu dikkandoo ko mu yàqal la som ndog dama xaaj dama xaaj muraake bi rek bi bàyyi lépp ma seela la baa ma seela mbulu yi maa nekk kaak kilo mbulu chaque jour jeex na ñànku ay ay ñànku fan laa jëm ak yow 4 kilo la 700 waaw yow fan ngay eh jugal wàññi ji 2 kilos yi nga bàyyi 2 kilos yi. xalaatuma sax walla.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

ñànk yoruma xaalis koor gi góor ñiy doxaan ñëppay toog ba ba nag ndax seen fere day bari ma garaawul man wala wal suma loo suma dem di koy yellu sax ci mbaa de dinaa yowee jugal nga dem wàññi deux kilos yi la sama may ma lool wallaay sama ngor may ma baa bàyyi la am nga ngor waaw sa li ma wàññi mu des mbulu kese mbulu kese ma wàññi waa loo xalaat ma ba doo ma fëgg fëgg ma fëgg ànd ma la doo ma laaj laaj ma kon baax na yow zéro si zéro ma zéro sama zéro daan na mënoo ma cee jàppale daal ñànku aw ma aw ma cent francs dafa daa kaaf këlëmbu ci sama ngor ci laa la boole benn. garaawul léegi dindil kii bi 4 kilos yi. waaw dindil benn liibar bi mën naa jëndal sama bopp. yow mën ngaa ñëw indi liibaru mburu ne ma 300 lay jar maa ngi yow ay wax di <coughs> maa la ëpp xel aller ak retour mën ngaa dem. maa gën nekk ci sama bopp. yoonu jàmm xam naa de ma lu ma këtaaw wala assur na dinaa ko jëm su mu gën a yàlla mi nga xam ne mooy may gëmu nelaw ta wala su ma gën a balaa jant so balaa ñoo balaa ñoo ala malak su ma bokk amul 700 dina ne ko xuj sama loxo ko fu mu ko mën a jaaral. yow de 700 yi heure la nar a du xëy du gont. yow xamoo yàlla. yow xamoo yàlla. parce que yàlla yow balaa si xamoo yàlla. yàlla. moo moo nga gën a ñaan ko fot fot la sawa boo naa la diw batal naa la diw. yàlla moo naan la boole naa diw. Ah, nga eh, baax yaa yey yaa yey di. il la gisee yàlla ba naan moo naan la boole naa la ak diw ay nit ki moo am fit. li mu metti mooy waa kër gi yëpp a nar fande ci ñànku mi la ñu wér seen ndog. yeah. Uh-huh. yeah. ñànku ngi xeex ñanko ngi saaga nee na daa dee di ñoo di waaga ànd ak i kookoy daaya ñànku ngi fee. toog ñi ko mag lay kekkantoo ñànku bëggu jàng booy rangu soot di luube lagalu loolu du doole nekk koñ bi di tooñ lekk ànd ndaa yaa di yoole boo koy seet fii ngi boor be lii la nan ah. naan. Ah. war a dégg gaaw. waaw coïncidence. sa keur la jëm si wonni man sama sa keur la tàggoo nii. et eh, alors lu loo loo jàngate loolu. lii mooy war dañi dañi nduru ñaar tay kenn wax jaa ngi doog confirmé wu. baal naa la sama objectif. waaw bi ma tok waaw mu leer nañ ni. dugg na ci wéru koor wi. waaw té wéru koor. dañi mbir mo xamni képp koo ci tooñoon mo nga ci profito waaw baalu ko ak waaw te bu delu wat waaw waaw té man yow la am deug la.

léegi bu bàyyi léppam di ñëw sama kër xam ne fonk maag bëgg ma moo tax mm. te yenn saa mu ñëw sama kër moo ko wax joo xamante ni bu ko keneen waxoon mu xeex ak moom ñëpp ñoo ko sëkk moo tax ma ne baal ma àq baal naa la àq yàlla na nu yàlla boole baal yàlla nañu yàlla boole jégal teew koy at yu bare bare bëri yow it bu ma bu bu bu sama xol lu mu naqari naqari waaw bu ma defee erreur na nañuy jégalante dëgg la dëgg la ndax ñaan ni ñi ànd bu ñu deful erreur problème du am dëgg la du dëgg dëgg la ni ko suñ Fallou waxoon waaw nee na nit bu àndee at ah. ba at dellu si waat jotee wuñu benn yoon ah. àndam naa fekk naa fekk nga ci biir tamaa yow du ñu naa fekk minimum minimum di lundi au dimanche bu dee bu dee waaw man daanaka dimanche bi la ñuy jubóo. waaw dimanche waaw dimanche waaw lundi ba ba samedi si ay jàppal bàyyi lay nekk. Ah, waaw dimanche dañuy naan léwal dañuy naan léwal waaw waaw dimanche moom fa am ceeg ataay. yàlla nañ ko yëgaleeg jàmm. waaw yàlla bu nu feebar. déedéet yàlla bu nu am problème mu dépense. amiin amiin yàlla nañu am café ku doy. amiin yàlla nañu am suukar ak meew. amiin yàlla nañu am lépp lu jëm ci ndogu. waaw ceeb mu xam sa. waaw tàndarma waaw lépp lu jëm ci ndogu rek. waaw yàlla na ko yàlla motali. amiin ceeb bu fatt rek. tan nangu suñu koor. amiin waay amiin nawle amiin nawle tan nangu suñu bu loolu yi weesoo nag mm-hmm. nit nitey mbokkam mm. dukk dugg na ci wéru koor xamna la da nga tang dugg na xari nga deret dugg lu way wax nga yaakaar da la xeeb dugg ru xew mo dem xulog fa géwél ba giir comme yoy yep def nga xam koor gi passé mise à jour sa bop xol yan organe moy ëpp lu mu suufe si yow nga sot ci ndox mu dal nga wàññi sa tàngoor du la dog sax ndax li may bari wul mm. ah aha eh merde la la wax lu waral merde gi xam nga gédé boy yedd da nga yedd sa morom ah même bu dee benn fan maa la ko magee. ah déglu ma. waaw déglu ma laa wax. waaw yow diggante bi ñu jubóo léegi. waaw ñu wax ba ba oublié. waaw bu doon tey téléphone la. espace bu fees la. waaw dañoo supprimer. waaw pour mën a am espace bu libre. waaw nga dugalaat fi ay tooke. waaw di naan nag ma yedd man. waaye sa gémmiñ xasaw na sa doomu nday moo la koy wax. man gémmiñ xas xasaw. fils de boo naqaree dara du ma la wax da ngaa naqaree dara. moo tax nga réew. merde boo jàkkaarloog man di ma wax fii mooy sa xamee digi boo ko réew la yaru. yow yow yow kan mool na ngaa yaru. ah ma yow la yaru. kan mool na ngaa yaru. waaye lu yaru yaru yaru yu ma yaru man maa ëpp teggin. ma dañ dañ ma la lan dañ ma la dénk sa xarit la. Eh. léegi yow yaa yaa fi wax ne ay nit bu ñuy ànd. waaw dafa waxantu dëgg naa fekk. waaw léegi bu ñu waxantewul dëgg. waaw bul ma yeddati laa la wax. dama lay yedd. duul koy wax duul. bul ma yedd nga ndax ma yedd. ma ah. yeddati. da nga rek dangaa baax rek sa buntu kër moo tax ngay nekk di jaay na xel eh, sama kër boo eh, ñëw ma lay eh, nokk yox la sa buntu kër kan yox la tegal buum gi tegal yox sa buntu kër sama kër ay du waa ma waxee merde ma lakk sa gadd imbécile mu imbécile yow sa kër nga am xeer am xeer na xeer ñëw bu xeer na xeer ñëw barke yuntu ne ma damay sànni bo bo dina mel ni lakk laa doon yootal <laughs> gene lii laa doon yootal lii lii lii dal la càmmoñ la dal la càmmoñ ndey joor laa la jox lu ma la si liggéey day jàpp lu ma la si liggéey day jàpp bu la wóoree ni kooru ren gii sa put doo ci yëg doo ci yëg bànneexu bànneexu ndox ak café man maa lay liggéey man dinaa la liggéey ba liggéey sa njaboot ba liggéey yeah. Uh-huh. yeah. Vito Cocktail, une explosion de saveurs dans une même et seule bouteille Free yep, ñu jëmbatee ko Sénégal si anam yu mieux celle naturel Puis bi nag day wàññi tooy baax si yaram tayit yi oh, oh dina yok sen katan bolé ci vitamine rek la ñi bëgg so naturel nak vito soo exsident pour fête bu mënti doon te baax lool si yaxu gune ak mag lépp nag nekk si emballage yu civilisé te wóor ak jus vito da ngeen am choix te ñu defaree ko fi ci Sénégal ci anam yu naturel te sel disponible partout au Sénégal vito jus fabriqué par Groupe Cefas à Dakar à la cité cœur Damel à côté de la mosquée téléphone 77 241 06 06 vito jus le jus fait maison